xoyantaan a ngi noonu kii moo bàyyeekoo Gambi laa ilaaha illallaah xoyantaan a ngi noonu xoyantaan a ngi noonu ñu ngi ko sang benn lu perkaal xoyantaan ñu ngi ko sang benn laa ilaaha illallaah ma ngay jëbi jëbi Xoyantaan a ngi noonu ma nga sol yu xonk te ma jaaxal na Gàmbi ñëpp ay kopite yu xonk lañ sol Gàmbi yëpp ay fi yu xonk lañ sol laa laaxee la la a daana ngi noonu waaye daana ngi noonu dugg si no gis nga nga noonu waaye daan dugg si ndax Caaroy gépp ko dar tey may laaj nag kenn tontoogu ma ci ndax Baye Mandione bu daanee xoyantaan mooy roi des arènes nu Gambie wala lay dem xoyantaan nag ah. ku rey buur doon buur. waa loolu dogal man bu fi puusoon Macky Sall maay toog doon yor réew wi. Barke Serigne Bamba naa la junni. xoyantaan a ngi wane boppam Baye Mandione a ngi wane boppam xoyantaan da day fecc rek ndeysaan cey Baye Mandione xoyantaan ko cey Baye Mandione xoyantaan Mam décembre journée nit journée Jam Production ànd ci ak nit Nicolay en la yàlla dogal bu tafaatin Moustapha barki Serigne Touba mag la ci Njaay Tine la ci Moor mag la ci Xadi mag la ci Jaara Tine ma njoon sumeku na diggante xoyantaan ak bàyyi <laughs> Baye Mandione Soumé ku ne mais mu ngi diwu état ko ndax leket gi la def lu mu jàll ñu ngi tànq di sotti leket gi tame lañ ko def abu leket gi tame lañ ko def abu leket gi tame lañ ko def di tànq di sotti ma Njoon leket gi tame la ko def di tàng ci kopp bi di sotti cey Baay Ma Njoon ay xoyantaana ngay def yëfam mu ngay roof Baay Ma Njoon li muy sotte ko lan la cey Baay Ma Njoon ñu ngay teg ca loxo ya di sotti muy wàcc leket gi dañ koo bënn def ko saaru tame dëppal nañ ko ko nee nañu ko dawal wër géew bi Baye Mandione ngay daw jël na la ca des sotti ca diggu géew ba tey Baye Mandione mu ngay wër mu ngay wër Baye Mandione gaynde caaroy gi doomu caaroy gi tey Baye Mandione caaroy gi pa ànd moom tey mu ngay wër mu ngay wër mu ngay wër ndeysaan sama xel mi day dem ci Papa wala mu dem ci Double wala mu dem ci Père Mbaye Guèye ndeysaan yàlla leen yàlla xare àjjana nii lañ doon def ndeysaan nii lañ doon def ndeysaan sëtëtëtëtët say lamb mi ngi mel ni jigéen bi toll say te sëyoo boobu sax rek te koo ngay doon parce que ay ngay def lu neex waaw lii dafa neex la la lu neexee noonu la neexee kon neex na arbitre bi daa ni mu ngi wax ak ñoom ndeysaan Malick a ngi wax ak ñaari bëri moom fogole séeréer si noon cay séeréer bi daa ni mu ngi wax ak Baye Mandione di wax ak xoyantaan moom Malick doomu yaayu Babacar Diop góoru bu sa baali ndaysaan amateur yi bëgg nañ leen jaar leen président Gora Ndoye wu a dem na këng waxi mag dem na ndañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay tey mu ndaysaan nee na bàyyi njoon deltul ginnaaw xoyantaan ngay ñaan xoyantaan ngay ñaan bàyyi ma njoon nga taxaw di ko déglu bàyyi ma njoon nee na leen dama koy dóor bàyyi ma njoon nee na jóg leen diggante bàyyi ma njoon xoyantaan fa ñàkkee woon lamb ci sa na nen. ñu ngi fii si arène na cuuj. diggante ñu ngi ci arène nationale diggante Gambie ak Sénégal. danaa nga yàgg na seen diggante. danaa nga na fi. Gambie suñuy doomi ndey lañ. walaay nit mënu koo dindi. doomi réewi Sénégal fa dem boo ñëwee fi Sénégal. ay doomi Gambie ñoo fi nekk doomi Gambie fi nekk di jouer liggéey daan seen doole. Malick suuf na ba génn seen diggante. bàyyi ma njoon ko Bakel taana ngi rëng-rëng lee mu ngi koy xool ndax mu ngi koy gis man bëgg na maa aar gis nga ma ci làmb lan la Baye Mandione xoyantaan Baye Mandione xoyantaan lool Baye Mandione moo ñu woon gannaaw cey combat bi lii lan la lii nii loo ko gisee waat na beneen sens mbokk yi tey ñu ngi fi yoo xam ne mooy dimanche 25 décembre fii si arène nationale ñu ànd see kenn Jamaye production ak kan Luc Nicolaï promoteur de la petite côte Jamaye ke ànd ci boo dee combat a dox diggante xooyantaan ak ki nga xam ne mooy Baye Mandione muy combat de clarification ca Gambie la xewoon tey ñu leer ko leeral fii ñoom ñaar ngay def déplacement latéral Baye Mandione xooyantaan ñu ngi noonu ñoom ñaar. Baye Mandione xooyantaan ñu ngi dox di wër géew xoyantaan a ngi deltu ginnaaw Baye Mandione na nga ko topp tey bu ma doon conseil Baye Mandione dama ko daan taxaw jarut mu koy topp daa war a taxaw samp ñi me jam-jam yi xoyantaan lay gambi du de songo jaakiyeet nañ arbi woowaat na leen ndax Baye Mandione day dellu wala day xaar moo tax ma ne leen Baye Mandione daa war a teey a ñamante Baye Mandione daa war a door xoyantaan delloo ko ko am joob joxol njaay cey Baye Mandione xoyantaan ey Baye Mandione xoyantaan songante nañ Baye Mandione ñu won ginnaaw xoyantaan leen jàkkaar lool Baye Mandione xoyantaan xoyantaan jàpp na benn loxoom mais Baye Mandione jàppagul Baye Mandione amul ngemb xoyantaan moo am ngemb ndeysaan diggante xoyantaan ak Baye Mandione Baye Mandione a ñëwoon ginnaaw xoyantaan lan jàkkaar lool ndeysaan diggante xoyantaan ak Baye Mandione kee daa jàpp ràccu mais Baye Mandione daa war a def effort diggante xoyantaan ak Baye Mandione ndeysaan diggante xoyantaan ak Baye Mandione xalaat perte la ndax Baye Mandione jàpp na ngemb benn loxo Baye Mandione am na benn loxo ndeysaan diggante Baye Mandione xoyantaan le cinq décembre muy samedi tey ligli ko laay moo ñu fi woo ànd ci ak Jam xale bi nga xam ne bi mu ñëwee yàggul waaye daa defar lamb ndeysaan Malick nee na bëre leen Malick nee na ñaari mbër yi bëre leen xoyantaan Baye Mandione xoyantaan ak Baye Mandione